mbatt ba ndeysaan isaat bi foo sànni mbatt mu tag nag lambu jaa ngi nii xanaa jàmm ak salaam rek menen ta nga tiit tiituma tiituma jàkkaarloog direct bi nii di xool sa doom tiituma ndax li may li ma li ma yor xam naa ko xam naa ni am na jom am na fit te macha allah yal na yàlla xeeb doole rek waaw di ko ñaanal ndam rek loo yëg baayam jiitu ma topp ci mu teral baayam teral ndeyam su ma la déggee bàjjanam nga bàjjanam la maa topp ci papaam maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla may ndam lu sedd guy lu mu mës am fenn ci ma yëg laa ilaa xanaa rek stress rek doom barke Seydina Mouhamed yàlla may ñu ndam yàggatul waaw yàggatul waaye ñoo ngi ñaan rek ci barke Seydina Mouhamed yàlla na yàlla may ndam waaw ñun jàmm ak salaam rek xel mu dal lañu àndal fi mu toll. na kon. lool lool xam nga lu tax ah jom la te nañ ni incha allah yàlla nañ yàlla may ndam ndax werante amatu ci fi mu toll. geri çık bak. vingt heures cinquante trois minutes. Lac de Guiers nag pare nga. mu ne waaw booy ñaa pare na mu ne waaw arbitre bi sifflé na ñoom ñaar ngi lépp Euh, avertissement lay jël boo xam ne mën nañu ko dagg ci xaalis sax waaw parce que sorti nga def sorti nga ko defee amul lu muy perte Boy Niang dafa ñëw bu abi piyes piyes. en tout cas bu ñu mënul présenté dañu jàppante bëri. waaw loolu mooy jeexal bëri. loolu mooy tracé ay mbiram sant la bu wér sant yàlla bu wér ma ne ko sant yàlla bu wér sant yàlla bu wér a wér a wér julli ci Seydina Muhammad waaw ñu xam rek ni ñoom xale la boo ñaa xale bu ndaw la ñu ñaanal bu ndaw la bi muy bëre bi la dageer bëre élève la muy jàng kon nag tey bu toogee ba mat si nii rek la dageer sant yàlla alhamdulilahi rabbil alamin sant yàlla bu wér may ko may leen bu baax gërëm leen sonn nañ ñoom ñëpp ñoom ñëpp Farafone cité ga ma njëkkoon a dëkk muy cité 1 cité 2 cité 3 ñu ngi nii toog di ma jàppale depuis bi ma combat bi taxawee ba tey ñu ngi guddi bëccëg ginnaaw raay daaroog cité pépinière fépp ñëpp ñëpp jàmm gën jag saaw ñëpp kenn desul ñëpp a ngi nii taxaw ñëpp a ngi toog maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp wax alhamdulilahi rabbil alamin sant yàlla waaye nag dëggalul boppam amul fu muy jaar ba daan kon nag man suñul mooy am parce que dafa ragal waaw ñu ngi maa maa ngi rek sant ñu ngeen dundee làmb ah la comme la dégeer lii mooy mëninam ñu bàyyi koog mëninam niil la dégeer bu xat la booy ñaa yóbbu na ko ardo bëgg kii lekk xaasi promoteur la fi nekkee match nit waaw waaye sant yàlla. Ah, xam boo gisee lii nga xam ni këru taalibe la mais lii dafa gën lu ne ndax booy ñaa bi mu bi la dëgër di bëre moom mi ngi jàng école moo ko mag fop jiitu ko ci bëre waaw moo waroon na prouver daal booy bi jàmbaar la def na lim man mais machine lu mu def ci yéen. ah baax na moo moo gën defet moo gën moo gën daanu. jëm. ah xam naa nag dañuy làmbaatuwaat rek yàlla baax na. làmbaatuwaat fan. non baax na xam nga. wa wax bu bëree dëgg réer te dañoo bañ làmmiñ ji suñu daal nañu bàyyi noonu rek xam naa ni bu buñ demee ba ci kanam ba waxtaanaat suñu biir lépp dina baax bu soobee yàlla